ndax koo jutut jutuwaayam waroo koo digal balaa nga ko xam rek nga dajeeg xale su ndaw soo xam ni la nga xam ak néew xamu ko tekku na da ko xeeb waaye yàlla moo def nit ñi rawante mm-hmm. nga gis mu dina digal ci xelam yi du yàlla na toola ko maanaam ci xelu bu xaw muy jéem a dindi li nga wax te wóor la li wax ni bu ko du si teg jéem benn baat mm-hmm. te wóor na lii mënoo taxaw di ko expliquer ba mën a comprendre parce que li war a dajale ba comprendre loolu moo bëri soo xamee loolu da nga xam ni nga war a ni nga war a noppee ci waxu man ñi jëlee seen wax suufe nag yow mu ngi doon wax nag jingatkat yi di la wan ne ñoom ñëpp seen jingat gi ci dégg naa lañ ko teg te nag duñ gëstu dégg naa rek gëm mu ne moo wax ne ko yow mën ngaa góorgóorlu ci sëriñ bi daal di ko laaj waxtaan ak moom ba gëm ci lu wóor wala nga weddi ci lu wóor waaye su may nekk topp yow xaniata doore nga fi am li ci biir mbir arabi bu am bénéfice wal xeyr ak yiw araaji bu lëng alladi ba nga xam ne nafamu njëriñam mu xaqaqun lu wóor la wa saaxibu boromam mu wafaqun kuñ dëppal ak njub la doy la nga bi naqalil fasaqat ci toxal ak kàccoori wala kësëba ak narkati lii nga xam ne ni njëriñ lu baree ci nekk ay narkat kàccoor wax la safaan rek nga gëm loolu te wóorlu xoo te mën ngaa wóorlu ci te yéen lañ xamoon ci yéen mooy lu ngeen mënul am yaqin sax da ngeen si da ngeen si jéem a wuti yaqin balaa ngeen a gëm wakaana nekkoon na min aadika aadatika si sa aada nekk ne wala taq na doo doylu fi baabi zanni ci buntu njort wa nafi ak njëriñ alxalil gu néew bi naqali si xaati si doxal ñu xóor ñu alasbaatu ñu sax ñi maanaam ñu dëgër ñi xataa tubaasira ba nga jonjoog alam loo mbirum bi naf sa bopp loo ne njëriñ li bëriwu sax te njort rek nga ci mën a am bu ñu xóor andiree yow loolu daaw la doy lu mooy nga dem gëstu bu ñi te loolu njëriñ li melu noonu lii nag njëriñ lu dul jeex la yi waat nag alaxira ay narkat nettali la nga gëm waxi narkat yi te mën nga ci am lu wóor mm-hmm. xam nga loolu kenn xamul noo ko mën a jàppe mm-hmm. dog na ko ci lay maanaam sëriñ bi topp ko njëriñu àddina alaxira la njëriñ lu bëri la mm-hmm. te nga gëstu ba xam loolu leer ci mbiram lu yomb ay narkat waxal safaan ci moom nga doyloo loolu gëstu jiwoo te yow lañ xamoon mooy loo mënul am yaqin sax ay nit ñu dëggu buñ la waxee doo gëm lu may ba nga demee xóorlu jéem wut njort bëgg na a dëgër njortu ñi kuy bàyyi waxi ñu dëggu di jàpp ci waxe ay narkat di wuti lu ko njort bu gën dëgër di wuti mm, maanaam njott bu dëgër ci loo xam mënu ci am yaqin bàyyi loo xam ne mën na ci am yaqin mu ne ko loolu ne tegoo ko ci njub tegoo ko ci xam-xam de mm-hmm. faalaa jarabtalu tey nga natt ala zalika ci loolu fi hadal baabi ci bi la bunt allazi bi nga xam ne moom baabul yaqin mooy bunt bi yaqin wan nafu ak njëriñ allazi bi nga xam ne moom sa saadatun texale maxda gu sell tey ngaa jéem a wuti lu la xóor mm-hmm. bañ a doyloo ni rawatina ay narkat mm-hmm. ay nit yu mat buñ la waxoon sax woo ko doyloo nga waroon seetlu sa bopp waxuma laa ay narkat ba xam sëriñ bi alaysa ndax ne ko xaasaale min ko suppee ci yéen alhamdulilah yal na yàlla gërëm taala mu ko man comme ci yéen ak bi li ngeen def nii est ce xam ngeen ne lii contraire njub la wax na ko dëgg waaye sëriñ yàlla musal na ko sa bakkan topp bakkan feebar rek moo mm-hmm. feebar xam nga feebaru xol dafa am. ak bakkan yàlla nañ ci yàlla musal ak moo ñu sonal sonal lañu lu raw lu ñu feebar yaram sonale xaw ma kañ lañ ci wér xaala wax a de yàlla na gërëm allah yàlla taala kaanu ci moom waa ji ne ko xatansani dog nga ma bil xujjati ci lay dëgg dëgg xamatuma lu mu wax te lii mooy yoon bu la nit dogee ci lay bul jàpp nit ki moo dog ci lay da nga jàpp ne moo lay wan ne la xam-xam man rek maa am fu mu neex mu feeñal ko nga nangul yàlla bañ a jàpp ne nit ki nga nangul waaye boo gisee sa bopp jàpp ne affaire yi xam-xam bi yëpp yow la nangam nangam doo nangul nit ñi nit ñi dañuy ba sonn nga bëgg leen fere ko fekk xamoon ne yow yaa ngi ci natt bu rëy rëy rëy <laughs> xam nga li gën a yéeme mooy jàkkaarloo koo xam ni dafa xam sa baatin xam lépp di dul dëgg xam na rusul na de wóor na ko yow li nga wax ni dul dëgg hmm? loolu mooy li gën a yéeme wala boog moom lépp may tuuti nga di ko ko maa saa yoo jàkkaarloog benn mbindeef bi gën a ndaw ci mbindeef yi wan ku ne ko maay diw jàppal ne yaa ngi mel ni ku jàkkaarloog yàlla di bàkku ci kawam <laughs> xaw ma yàlla ci kaw am na mbindeef yoo xam ne bu la yàlla wuñu loon li am doo jéem a bàkku seen kanam da ngay torox lu rawatina ak borom bi subhanahu wa taala ko defee yàlla bu feeñalee dëgg ci nit yow xamoo ne dëgg googu yàllaa ko feeñal ci làmb ñu nit ki nga yaakaar yow waa ji moo feeñal dëgg ji commencé di réeru ci kawam yaa ngi réeru jamono boobu ci këram yàlla te xamoo ko dëgg ko feeñal ci làmb daal dafay ci lépp gis ne moom mooy jàngale mooy xamle mooy def mooy dindi hmm, foo gis njëriñ rek jël ko saa su nekk it xamal ne moom nga nekk di déglu léegi-léegi na am na loo xam ne daf lay xamal am na loo xam ne daf lay nattu yooyu foo nga xamee su ko defee mu ko dong nga ma ci lay parce kii ku baax la wallaahi maa ngi gën ci yàlla maa yumkin naa jàppandoo ñu mukk aljawaabu toon ndax naa saa ci lii abadan bu faw lii mënuñ cee tegati tontu lii rek mooy wax ci te pourtant moom moom daf ne sëriñam la sax hmm? waa ji moo naa waaye dafa xam ne wax na ko dëgg mu ne ko wacaat seedeel xale yi ci man bi andi ne man taayibun maa ngi tuubi la laa jëm ci lii mooy julit ay waaye bu yàlla na toog ngay rëy foofu ay waay ba ba bi fekk la fa da xam ne ko xeebu nga de moo tax saa yu la yàlla ma ne dëgg gaawal delluwaat te yàlla ñu yàlla woon dëgg te tàggat ñu ci nangu koo topp su ma xaal topp maa cheikhu sëriñ di laanu mooy Seydi Ahmad ibnu Mubarak al maskuur buñ tudd xam moo nettali moom moo doon wax ak bi nii ne ko inkaana bu nekk wala bu dul ma ñàkk lakkum ñooy lay mel taqlidi ci roy xam nga yéen roy rek dañ naan dégg naa ngeen doon toppi bu fekkee da ngeen dégg si sëriñ bi dara rek roy ko dee roy rek la fa xaliduuni roy leen ma li am ren ngir ñaari mbir axaduma benn ci ñaari mbir mooy ànd nak nag yow taalamu xam nga basirati sama gis-gis fi la siyaay ci mbir yi xam ne man ku am seetlu la te ku xam fi may teg sama tànk la loolu xam nga ko ci man ndax ma yombut saaniha ñaareel bi ñaareel bi tax nga loolu maa roy mooy an nak nag yow taalamu xam nga andi ne man xaalatu jaxasoo naag rajula góor gi almazkura buñ tudd si ni ne ay at kasiratan yu bëri nga taalimtu ba ma xam ne ci moom maa la maa la nga xam ne yàlla mu xamu ko xëy rek kudul man léegi sëriñ baa ngi léegi wax rek ngeen ngeen xam ci moom gëm léegi nag ngeen gëm moom moo gën ngeen gëm fenkat yi ki am fenkat fenkat la yàkkamtee wax lu du dëgg ñaareel bi xamul sëriñ bi man ngeen xam ngeen ne man damay seetlu bu baax kenn du ma nax xam ngeen loolu ci man te yàgg naa ak moom xanaa kay ngeen roy moom moo gën a yéele sax bu ngeen doon roy <laughs> xam nga fu nekk nii waroon na ko si mën a bañ a yokkal wax ji parce que dog na ko ci lay bu ko si yokkalee wax ji dana ko gën a dogati waaw waaye dafay feddali lay wi waaw ma xawlaay këzaba waaye narkat yi alfasqa kàccoor yi faa aksarum ñu ëpp ñoom la muy xalit royuñ sax mislukum comme yéen ñoom royuñ kenn sax fenti wax rek xam nga yéen da ngeen dégg ngeen roy li gën a yàlla mooy ngeen roy ma man waaye ñi kàccoor yi ñoom royuñ sax ñoom ñu fenti rek ndax ñun jar nañoo roy booy na may atimaadum nag seen sukkandiku la tasaamoo mooy dégg naa ëllëg yi nga xam ne laa asadir ci di ko ñeel wax ju amul benn cosaan cosaanam nañu toxal di wax di wax rek wa sababu lay waral wax jooju alxirmaanu mooy xeñ wala xislaan ak gàccaal ku yàlla xeñ bëgg ko gàccaal mooy fenti ay wax di déglu lu mu dégg rek gëm koo xam loo dégg kii loo dégg rek gëm ko loo dégg léeg-léeg doo dégg nga sos kooku xam nga ne bakkanam topp mais jëmutu kii dara jéemut a xam njub daal jéemut a xam dëgg kon bu fekkee da ngeen roy da ngeen tënku ci waxu nit waxu ay narkat war leen cee tënku jël leen sama wax ci waxi ki xamut war leen cee tënku jël leen waxi ki xam waa ci jaxasoog moom xam ko ko moo gën a jërë jàpp waxam ñaareel biin mooy ay ñii ngeen roy ay nit lañ yoo xam ne ñoom luñ dégg jël am na ci ñoo xam ne ñoom dégguñ dara ñoom ñooy fent rek wala ñu foog fanasalu ñu ngi ñaan allah yàlla taala gën a tawfiq dëpp rek njub bi mën nañ ci xewle mu fadli ak ngëneelam fa xaar mu ne fa maa taqul wul waxati cheyan mbir àqara beneen doy na doog nga ma ci lay su ma laqee ni topp mu dajeeg man ibnu mubarak mooy wax faqihun àqara beneen aji dégg fiq faqihun aji dégg fiq àqara keneen mu ne chaqil fiqi yi si sëriñu si sëriñu aji dégg fiqi yal mutaqaddim bu jiitu te ma doon wax ak nii beneen sëriñam ñëw ñii nag ñu baax la ñu woon ay borom xam-xam la ñu woon ndax action bi rek moo fa xaal lii mu ne zakar ni tudd ma zakar tudd li ñeen ma fulaanun diw ankum ci xujjatun lay xaati wala boo bi aji dog li kulli munaasin ñeel képp kuy xëccoo ah di wax na ma ci yéen lay wax xam ne képp kuy xëccoo de bu ñëwee loo wa lay wa dog maanaam lay wii dana dog waxi képp kuy xëccoo yéen mm-hmm. su mal tafata mu gersu ilal faqi jëm ci aji dégg fiq almaskur gum tudd dafa ànd ak waa ji ñëwaat si mu baar ne ah, na ma nangam ak nangam de te di wax dëgg yàlla lay la wu jot mu gersu ci faqi boobu faqaa mu alam tox bi ne ndax xibaaroo ma anna fulaana diw xaala wax na lakk ñeel la kayit nangam wa kayit ak nangam fa xaala mu ne naam waaw su ma xaala topp faqi bu mag bi wax ne bi hada kalaam ci wax ji xatax da nga dogee zahra naa suñ gannaaw gi wax ji li nga dogee suñ gannaaw gi <laughs> su ko defee lii bu doon ñëpp di def inkaar dana jeex te njub dana xol yi danañ set waaye nu akam ndax fariqun fi jannati wa fariqun fi sair kon foofu am ñu def jëfu waa safar yow ñaan yàlla bokk ci ñu def waa aljana foo am ñu feebar ma ñaan yàlla bokk ci ñu wér su ma xaaltoom wa ahmad ibn mubarak ne wa haazani faqihaani ñaar ñi dégg fiq ñi ñaari borom xam-xam yi huma ñoom rasu tabaqati ñooy njiitu maski min ahli asis ñooñ jamono jamono bi ñu nekk bu ñu def ñi ñooy njiir ñi ñoo ci raw baysu annahu ngir ne ci ne moom laayu jaari huma du ndëkkanteeg ñoom ahadun kenn fii waxtu yi maa seen waxtu amul kuy rawanteeg ñoom seen waxtu waaye maa man duuna huma waaye ka leen gën a yées min ahlil inkaari si ñooñ weddi yi faak sarum ñu ëpp si ñoom yaa tamit loolu dañuy sukkandiku ala tasaamuy ci xam laa asla di rek ci sànn lawo di ko ñeen ko nun ñu ëpp dégg naa rek su weddi kat dégg rek dégg naa waaw wax nañ ko dégg naa loolu rek ngay dégg del xool weddi kat wël yi ba xam daana wax ne ne maa ko gis dégg naa dégg naa waaw waaw nañ ma nangam nangam waaw wax nañ ko soo ko laajoon dem nga def fi wóorlu du dara du naan déedéet bu bu ragal ñeme yàlla dana def naa ko waaye bu duñ gëstu duñ xam dara di sos rek kama sabax comme ni mu jiitu waaye nag ki gën a bon mooy kuy défendre wëliyu di weddi wëliyu te da ngay défendre kat yu mel ni la ngay weddi moom la ñuy wax ci moom waa kii suuf ñi si gën a ñaw allazi mooy ki nga xam ne ñi si ëpp xel mooy ki nga xam ne yaa tamiru day sukkandiku fi inkaar yi ci weddem ala xawli ci waxam kun naa nekkoon nañ naarifu di xam Seydi sama sang fulaanan diw wala mu yokku nekk woon Kaasa comme ni maanaam xamoon nañ sëriñ bi jiitu waaye melu woon nii weddikat yu bëri loolu la ñuy wax maanaam yow melu woon ni sëriñ bi jiitu loolu la ñuy wax te pourtant sëriñ bi jiitu tamit melul ni sëriñ bi jiitu hmm? dañuy xool daal lu ngeen xaw a wutee ñu ne waaw waaw kon nag kii duwal lii parce que sëriñ diw nangam nangam te moom melul noonu. xam nga loolu affaire caaxaan rek la yaa nii lu ma ne mu ana rajula munkar nag góor gu ñu weddi ale ci nekkul que saydi sama sang furaaran diw melul ni diw wala ñu wala ñu diri te xamul alwaanun ay couleur la wala lii ay façon la ku nekk ak saxaar wa garabu tàndarma sin waanun ay xeet lañ waaye tusxaa dañ leen nandal bi maa in waaxidin ci benn ndox wanu faddilu ñu gënale baada leen leeral baada ci leen li fil ukli ci ca meññeen benn ndox la de wala yëpp ci benn géej lañ rootee mooy géej xaqatu muhammadiya waaye nag yemewuñ ay résultat kon bul xool ci résultat yi diw résultat am lii la woon yow ana sa résultat loolu kenn du ko xool lii def nga lu diw def déedéet teew ko nekk wala de teew ko am may moom moog diw yëpp ñoo bokk fu ñu naane waaye wonu faddilu baax daal baax fi okri inna bi zalik nak nekk si noonu la ayatin ay kawtéef li xaw mi ñeel nit ñi ñu xel gis nga yàlla lay wax benn ndox nàndal garab tàndarma meññe di wute te benn doxaleen nan dal noonu la wëllu yi mel kon su ko defee bul tëkkale wëllu yu ci biir ak wëllu yu ne waaw bu kii bu doon wëllu yu dafay mel ni diw nangam nangam nangam déetu mën naa wuti sax ku ko jiitu si yenn mbir te fekk ñoom ñaa ñu ay wëllu yu Cheikh Tidiane wut naa yonente bi sallallahu alayhi ci ne moom ci jamonoom kàccoor yi dañ noonu laal parfum misk ajjuma moom du laal parfum misk sax bi di ajjuma la parce que dafay bañ a niroo kàccoor xam nga ku bañ a laal parfum daa bañ yi du ko laal lu dul ajjuma ndax ajjuma lañ gën a sopp laal parfum kon moom dafa bàyyi woon hmm? ajjuma buñ ne la du laal parfum misk te ajjuma si moom dañoo sopp ku ci laal parfum misk parfum misk tamit ci yonentu gënoon bëgg la ajjuma ñu sopp nga laal moom àjjuma googu sax du ci parce que saay saay ñoo koy def kon moom dara bàyyi am parfum boobu loolu àjjuma waxatuñ ko yaa ngi wax noppi léegi sidna Cheikh radiyallahu lool bàyyi na ko ci jamono kenn du wax ne kii topp sunna parce que naa naa yonent defeewu ko woon nii yi bokkuñ loolu <laughs> yi bokkuñ dégg ñaareel bi tamit wali mën naa ñëw lu mu dugal ci lislaam dugaloo génn wàll ko lam xamle xamle woo génn wàll ko lam jëriñee jëriñoo génn wàll ko te yaa ngi ci yoon ma xaame ya maanaam yàlla may na la lu rëy waaye nag wali bi bi moom la mu def dafoo génn wàll ko du doo wali nag affaire bi demeewul noonu <laughs> wali wali la xamal dëgg nga xam ñi ko ñi ci nekk waaye bul tëkkale daal ñu ëpp ci weddikat yi nag tëkkale rek ngay gis ñu def waaw diw diw nii la meloon yow noo mel mu mel mooy mu ngi julli nga <laughs> xeeb julli su ma xaalto moo waxat da xaltu dugg naa maa cheikh ànd sëriñ bi radi la anhu ilaa bustaani jëm ci fi fasli rabi ci xaaju lool li فنظر مقو الى اختلاف ازهاري تشوتي فلوري وانواري اكتون توري ساعات دير ثم رفع ميكت رسوبهم الى جمشمن وقال مؤنم لنا نسلو يوم ده خمنا لو نيك رك يالا داف لين سي جانغال موتا نيوم لول لنج سي خول دفور خول فلوري ووتي تونتوري ووتي مو يكري بوب خول اب دير يكري بوب خول ما وقال من من اراد كو بغ اي يعرف مخم اختلاف الاولياء ووتي ولي wa tabaayunim ak seen ak tàqalikoo fil maqaamaati ci maqaame wala axwaal ak xaali maa kaw ni ma ànd ak nekk ak ñoom ñëpp alaa hudun si njub wa sawaabin ak eh, yoonu yoonu yoonu alaa hudun si njub wa si ah, gindeeku wa sawaabin ak ak neex ga neex ñoom ñëpp fi xulóo bi naas ci xol nit ñi fa leen na xool ixtilaafi haadi anwaari ci wuteg yi de tontuur wala azhaari ak flóori maa xalaawati ànd ak neex gi neex fi xulóo bi ci xol yi ku bëgg xam wala lii ni ñu ci maqaama wutee ci jëf wutee ci xaal wutee ci melo wutee ci waxin te ñoom ñëpp a ci njub ñoom ñëpp la nit bëgg xoolal fleur yi wuti nañ lool waaye fleur yëpp lañ bëgg waaye duñ benn de dañoo bokk taar nag dégg hmm? kon su ko defee doo bëgg a wax rek kenn du ko weddee ne wala yu nii la meloon moom melu nii dégg kenn du ko def noonu dul islam wastaamtu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh